jéem dimbale sa bopp ba bañ a nekk njaboot bu naan kii primaire la te presque nun ñëpp ay primaire la ñu te boobu nag gàcce la ci piir la moo tax histoire sainte amul paase ñun ñooy arab yi waaw yàlla moo wax yonent bi ni ko ñi tuub si ci yow te nekk ay primaire wattu leen waaw ndax ngëm du dugg ci seen xol waaw seetal loolu loolu ko ca bokk war nga wattu sa bopp xaalatil arabu aman na xullam tuuminu te ñun daaniki noog arab yi ñoo yem martaba ndax ay primaire lañu xamuñu na nuy def al arabu ashaddu kufran wa nifaqa te ba tey ñu ngi fi mooy nun nun ñaxum suuf mi waaw mooy nun ñaxum suuf mi ah yàlla buur la ndax mag ñi itam bari nañu yitte waaw bari nañu yitte tedd gi borom guddi gi li mu man def na ko ñi ko remplacer li ñu man def nañu ko waaye taxul nag ñu ëpp di surga yàlla ñépp surgam lañ Maodo daan na wax ni bala ma dee ñu ne xulafaawul arbaa man nag kon fuñ may teg bu ma leen juróomeelul fuñ may teg nee juddu mayu leen ko jëf rekk leen ko may te lu ñu jëf jëf naa ko tawfiq tawfiq ilaahi loolu ci sant yàlla la bokk mu mel ni itam mag ñi seen coono yépp moo di borom bi dimbale leen sowee leen lenn njaboot ndax dafa wax yonent bi ni ko dëgg dëgg neexul ba neexul waaye ku ma yóbbu safara toroxal naa la ku ma yóbbu safara rek toroxal naa la man mi xam luy safara ku ma yóbbu safara rek toroxal naa la waaye ku ma yóbbu aljana nag teral naa la ñoom itam seen yitte mooy wut lu yombal seen démarche seen yitte mooy wut lu yombal seen démarche te gis nañu ni la koy yombal bokk na ci ñuy julli ci yonent Cerno no mbaɗɗa ko Cerno no mbaɗɗa tukulóor bu déggul tukulóor su ko defee mag ñi kenn ku nekk ak sa pexe kenn ku nekk ak la nga gis ni moo lay mën a may sa démarche bi gën a yomb waaye ñi ci ëpp nag dañ daan julli ci yonent bi moom lañu gis ni moo ëpp doole waaye itam dañu daan xare ay rab yu nar a gaañ njaboot yi ku ci mel na Cheikh El Omar radiallahu taala anhu li mu gënoon a ragal ci njabootam mooy rab wi ñuy tudde ñàkk dëggu rab wi ñu tudde ñàkk dëggu moom la gënoon a ragal ci njabootam ndax boo dëgguwul benn yiw du agsi daan na ci dem ba ku mu yëg ci yow ni dëkkuwuloo dina la teqale ak ñi dëggu bala nga leen a gaaj ak nu mu ko defe bu dee rey sax dana ko def waaye cheikh sama turandoo rab bi mu gënoon a ragal moo di al atifa atifa mooy li ngeen tuddee sentiment baaxul ndax dafay glissé dem ci aatifiya dafay mujj nekk madhab te bu nekkee madhab nag dafay tegu ci li ñoo tuddee al asabiya ci parparloo rek ngay mujj sa ànd yépp àndu par yonent bi nee na laysa minna man daa ilaa sabiya nee na koo xam ni par par rekk li moo la tax a jóg ne bokkatuloo ci sama xeet waaw la mu ca daj te atifa dafa bare ay façon nag ku ci man sa bopp mën nga ko yaral sa njaboot ba mu soppiku jëm ci aqida mag ñi daañu soppi asifa mu nekk aqida waaye bàyyi ko noonu rekk ci asabiya la jëm te kooku catastrophe la dama am bés ma dégg ni dafa am lu ñoo woy ca Sorano ñu ni mi ngi tudd ñaani bañ ñaani bañ ma dem déglu ci ko nekk ko doon wëy daa nekk jarbaat la ci man ndax wëllëre Abdourahmane Sarr la woon benn bakkan wante dafa am habitude bu dee wëy daf ciy boole ay enfantillage ma gis ko ni ko bu ko defati mukk ma ni ko ndax tragédie la من المآسي لا من الملاهي ta tragedi nangul ñaar nangul rangoñ nangul re ma ko kon bu ko waye tu nonu way bu àndeeg joy rek ci malahi la bok bokkatul ci maasi seen orchestre woy ko woy bu nga xam ni Sénégal bi woy bi juddoo mënuñu ko ndax dañu xam àqu woy bi waaw wante di woy di ree kooku kaf la waaw di woy di jooy kooku yëfu xaleel la bu dee tragédie rekk mu yàqu ni ko nag ñun mënuñu joxe suñu adhésion ci ñaani bañ na ndax yonent bee tax waaye itam duñu ko ŋàññi waaw ko ŋàññi lu tax yonent bi dafa wax ni bu leen lor ñiy dund ci ñi dee ba noppi ndax bu ñaani bañee it ay sëtam nangu na pexe amul ku bañ sa nangu pexe amul waaw daan na ko wax bu leen lor ñiy dund ci li ñi dee defoon lu bax na di ndax itam réew mi li fi nekk ah serigne Babacar si moo ko liggéey tàccu leen waay ni kon nag tabarkalla tabarkalla ku nekk ak la la yàlla defal waaw

melni kon ni yàlla waxe wax yonenti bi ni ko alquraan a chef de guerre nga na la conseiller chef politique nga na la conseiller chef religieux nga na la conseiller grand mystique nga na la conseiller boo génnee foofu rekk gaañ chef militaire nga chef politique nga chef religieux nga grand mystique nga te bu ci tardé àdduna tukki yenent bi topp ku ko ëppoon coono amul wata gis nga sama turandoo cheikh waaw kaa bi ma jaxatee kala nee na ko shérif nga ñetti yoon waaw ni ko kenn fekku la ci shérif nga ñetti yoon waaw xawa sharaf al ilmi من حيث كشفه عن الغامضات الحزن في كل مقصد حوى الشرف الديني حيث طريقه طريق الضمان الهاشمي المؤيد حوى الشرف الطيني حيث انتسابه لفاطمة الزهراء بنت محمد ان الشيخ شريف لنيت ma jaxate ba am ñetti sëriñ yu ko seetsi ni ko ñun daal ci ñi daan fexe pour nga torox ca lañu bokk dem nañ ci ba faaf torox kon nag bàyyi leen mu wuti ku ma bot ndax yéen ñi kat ku len bot war na wut ko ko bot waaw pexe amul muy wër nag wa man li bi ustaadi aluudu bi wërdihi yaqiini yaqiinan yaqiinan nee na kilifa kenn du ko jort dañ koy wóolu kilifa kenn du ko jort dañ koy wóoru yaqiini yaqiina kulla hawlin bi mawrid nee na may wër nag di laaj kan mooma mat sëriñ ila an aqarru bayna baatin wa xaadirin bi an lam yajud dahri bi hada wa yujadi nee na ma topp kaw gi topp teeru yi topp kaw gi topp teeru yi ba ñu ni ma nag ki ngay wut jamono juratu ko ma topp kaw topp teeru di wër ba ñu won ma ni ki ngay wut jamono juratu ko wa hal yakmudu l awsaafu li waxidi yukanna abal abbaasi najla mahammad waaw ah Cheikh de li mu def moom wàcc na ci fanweeri atam la firi alquran nu ko kenn firéewul mag ñépp moolu ko ni kii dana alku mu fexe ba alaji malik di taalibe ñu ni dana alku mu fexe ba alaji umar di taalibe ñu ni dana alku muy jàpp mag ñi benn par benn pexe amul pexe amul nañ ko wutal dog di ko ñaanal pour mu alko seetal lool ñaar moo am ku jege yàlla rekk yaatu ku jege yàlla rekk yaatu ku jege iblis rekk xat jeex na fii proximité la moo tax nga yaatu fële promiscuité la moo tax doo yaatu proximité ak proxi du benn nee ñu ko sa jëmm doo dootoo xaj ak nit ci kër koo xam ne sa jëmm la lëjël dootoo xaj ak nit ci kër oto boo jegee yàlla rekk yaatu di ko jaay tax boo jegee iblis rek xat jikko jaay tax waaw te yaa tax iblis dëkk yàlla yow yaa tax parce que yàlla la def ngay ngay ngay prince su àdduna bi di prince su univers bi te iblis nanguwu ko moo tax yaa tax mu dëkk yàlla yow mi tax mu dëkk yàlla nag war nga seetaan xare bi mi iblis dëkk yàlla war nga seetaan xare bi waaw boo ko seetaanee ba ngoon nga seede boo ko seetaanee ba ngoon nga seede nga ni buur bi de moo gañe tey ñu ni lu nga ni ca léegi yëguma fu ma fi fene yëguma fi fu ma yëguma fi fu ma defee caay-caay kon na buur bi gañe la tey wala nga ne ah noon bi de gañe na tey ñu ne la lu tax nga ni man man la xëccoo ñoom ñaar te waga jaane na fen na tappale na yàq na gor kon noon bi gañe na tey te danga koy bind waaw ngoon gu nekk danga koy bind waaw danga koy bind denc ko bi sangam buur bi gañe na waaw may territoire bi jël na ñetti ceer yi ndax fenuma waga jaanewuma yàquma nit waaye bés sàngam ak bés sangam noon bi gañe na ndax wax naa lu dul dëgg fexe naa musiba te di nga gis ku dund ba xëy génn àdduna te du ko dem te kenn du ko ci bindal bàkkaar ndax dañ koy jëppi ndax loo xam ni du ëpp fukki minute te moo la tax a ñëw ci kaw suuf te jaralu la fukki minute loolu kenn mënu ko dégg ngoon gunne war nga seede wax ku gañe kay ndax yaay seede bi te yow la ñu xëccoo parce que ku dagg sa digganteeg asamaan nag yaa ko defal sa bopp asamaan yaatu na te itam ubbil na la bunt yow yaa xam ndax fukki minit bés bu ne nga am asamaan jaral na la walla déet seetal lool ëpp naa xeeb nag ëpp naa xeeb ndax nit ñi xàmmewuñu diine ak aaday diine xàmmewuñu jikko ak aaday jikko du benn ñun aaday diine lañu xam mais xamuñu diine ndax diine bu amee sant aada la diine warul am sant la preuve néew bi bi ñu bëgg suul kenn du ko ni jàng nga sant walla jàll nga sant waaw ah. kenn du ni yàlla doomu Mor la walla doomu Biran Njaay la dañ ko naan sa jaam bàngook waaw di sa doomu jaam bu góor di sa doomu jaam bu jigéen mu jeex tàkk mu jeex tàkk waaye kenn du ko ne diwa ko jur dammee la ko jur walla keneen ko jur déedéet sa jàmm mbaa ngoog rek jeexal moo tax diine ak àdd diine bokkul jikko ak àdd jikko bokk di jaawale te baaxul su ko defee nag yoonam xam na lu tax mu tàllaay عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون واو yàllaay xam lu tax mu taal ay te fi mu ko taalee ñépp moom la ñuy tudd bu loolu amul lu ñuy wut si fii ñëw àdduna di fi noos dara du xew mënul nekk moom kay da boole noos beeg musiba mi nag waaw mënul ñàkk mënul ñàkk noonu la ko bëggee waaw noonu la ko bëggee léeg nga gis ku dem ba salit wallaay ndeysaan waa jega dana dégg kuy firi alxuraan ni yàlla na jege naa leen ku ma woo mu wuyu leen fekk goro ya di ko laaj junni taamu ko <laughs> mu dem jàpp ba tooy dugg ci néeg ba taal cuuraayam di ñaan yàlla junni toog fa ñetti fan dara dikkul mu génn bu jekk dem ba ca taatu garab ga ni waaw ma ndax góor gi daf ma déggul bopp négal ma làmbatu ko ba xam ni ko daaneelal garab gi ci sama kaw garab ga ni jàyyi rek mu fax dem ba ca garab ga ca des ni ko ah, lii rek nga ma yéene de joxuloo ma junni ba noppi bëgg maa rey ni ma ngay xulkat di dem joxuloo ma junni ni danga may rey ndax ah, waaye lii kenn mës na ko gis ma ñetti fan a ngi génn ma di ko ñaan benn junni rek te junni yi ci àdduna yëpp moo leen moom waaye ndeysaan dajeeg benn charrette dugg ca dem ba ca tali ba mu dugg benn oto ñëw ba ci Ndakaaru dajeeg benn doom bàjjenam mu ne ko kii du diw mu ne ko ah kay mu ne ko lii de yàlla ma ko defal dañ ma jox fii liggéey boo xam ne boroom nee na bu sottiwul tey duma ma fay te ñetti fan yii yëpp maa ci kay dimbali ma ndax juróomi junni la may jox ma jox la benn junni bi yàlla kenn du ko jaar foo ko warul jaar naka la ko ko wax rek mu daal di sujjóot waaw xam ni moo jaar yàlla fu mu ko warul jaar waaw yàlla bu bëggee mu jox la dara da ngay ñàkk waaw waaye tëdd ca néeg ba rek naan ko jox ma junni jox ma junni jox ma junni du la jox dara benn xakim hindi dafa am benn amir bu ñëw ni ko ah, jaaxle dayama indi mu ni ko lu tax mu ni ko sunu pale ba dafa yaatu te xat mu ni ko lu ko yaatal mu ni ko xéewal yépp nga ci mu ni ko lu ko xatal mu ni ko kujju gépp nga fa mu ni ko ah, loo bëgg ma digal la ko mu ni ko loo ma digal mu ni ko defal lu ñu mënul boo defee lu ñu mënul rekk ku jóge jeex mu ni ko loolu mooy lan mu ni ko dundeel sa ñaq te ba ñu dunde barke pale ba mu dem jël taabalam dem ca marché ba di jaay waaye foo dem yiw fekk la fa mujj na kenn du jënde kenn ku moom pour wax la ni loolu mooy li am solo mais yi ci des yépp yépp yépp amul benn fayda moo tax sunu borom li Maodo di wax ni mënul xarit nee na mënul xarit ne ndax lu mu jël rek xëpp xarit dama gis cheikh ñaari الصلاة على النبي مدك الجو يكجل بن بسلوك الجو مني دفكو هدية جعيس ابن مريم benn bi bu la ko joxe mu ni def ko hadiya ci Fatima bintu Rasul mais biñ ko seetee gis nañ ni ku leen ëpp coono ci kaw suuf mësul nekk te dootul nekk seetal li Aysa ibnu Mariam de looloo tax yàlla ku mu yenul du barkeel sa mbir nanguwu ko balaa barkeel sa mbir yen la ba dootoo bëgg dund te li mu defe Isa kenn xamul lan la mas naa nekk ci cinéma di seetaan film Aysa ibnu Mariam maa ngi dend ak doomu tubaab yu tuuti ñu ngi jooy bu métti te du ñu laaj seen papa man lañuy laaj parce que tubaab bu ndaw wóoluwul baay ba ah dafa bari lu muy def ci kanamam te waroon ko ko nëbb la tax du ko ko laaj man la koy laaj man mi moo xamul dañ ma lëjëla lëjël di jooy lu tax ñuy def li ay sax man leen doy saa kii c'est un américain ñu nit te sax ñu ni mais y a du sang partout man leen mais c'est du ketchup kii dóor nag seen papa di seen papa def leen nax de moo leen ni ay sëb nu Mariam la man leen mu jegewu ko sax xam nga moo tax Seydina Ali wax ni yàlla les les marchands de l'imaginaire ndokk ba ñu mënul bët sa rideau bi bët dul gis sayiduna ali ca ñaanam ga moo ni yàlla ndokk bi nga xamee ni les marchands de l'imaginaire mënuñu bëtt sa rito bi bëttul gis wala xaraqat al awham wala xaraqat al awham xujub al guyub ilayk ñu ngi fi nag Sayyidatuna Fatima yonent bi moo ko jur Khadija moo ko jur seetal ndaw lu jigéen tolucia ci yaakaar yaayam te gis ni yaayam yaayu papaam la te gis ni yaayam jigéenu papaam la te gis ni yaayam ndimbalu yaayam yaayam mënalu ko papa ñu teg ca may ko jëkkër ju dul reedu kaf te muy Ali ibn Abi Talib may ko jëkkër ju amul dépense ndax Ali yu duwul dépense wërsëgale ko ñaari doom yoo xam ni arach lañu war a yaru mool ay xasan ak xuseyn bii yenn ban jigéen ko at loola tax salaatu ba ñu di ko ko jox hadiya fokk yàlla nangu ko ndax yàlla ku mu yen rek nangul la ku mu yenul nag du la nangul noonu la mel su ko defee nag Islam nekk fi jural aduna bi doom yu ko kef masul jural kenn xamul l'islam doom yi mu jural aduna bi nañu toll ak njariñ yi ñu am moo tax ku foye sa bopp yaa foye sa bopp waaye yonent bi wàcc na fexe na ba lislaam jur doom yu am ci kaw suuf ba ci jigéen ñi ndax benn euh, intellectuel bu ñuy wax Khalil ibn Ahmed Maodo daf daan wax ni bu ma sañoon di moom ni li ma ëpp chance mooy aada àttewu ko te man sama réew aadaa ko atte mu ni waaye bu ma amoon jotam am chance am lu mu bind danaa ko bind moom nag moo xarit ba xarit ba ñu di ko wax الليث المظفر كيما لما ميتا نيو جانغال ادنا بيب وحيد وخيل نيو جانغال ادنا بي ييب مندين كين خامول سين ماي نومو ndax dinaa ko di wax sama mbokk arab yi dinaa leen di wax ni seen lang seen wax mooy seen gàllaaj seen wax mooy seen gàllaaj te du caaxaan bu alquran di wàcce mais kooku du caaxaan moo ñaare dinaa di yéene ñu bañ di weccee contenant bi contenu bi yépp ma bëgg ñu bàyyi ko noonu rekk parce que li li am yépp ci àdduna bi tubaab yee ko fi def mais coono bi ëpp njariñ li motax ñu fekki ci tubaab yi di waxe ni tubaab yi waxe dafa bu baaxul dafa toj gàllaaj baaxul ma am gan ñu ngi waxtaan ba indi problème mu ah, yaasir arafat kuya ya mu nekkal ba mu tudduma lu ñoo wax xaritatu tariq xaw ma ne ko baaxul waaw ah, ndax ci ci ci ma ko du am fasaaxa bàyyi ko ñu ko bàyyi ko am ngeen bu ko gën a rafet mooy ruqaatu sabaax te imam Busiri yi moo ko génne ma ko jëlal boobu moo gën ruqaatu sabaax chèque en blanc moo gën a rafet prononcé ko nga déglu ko ruqaatu sabaax dendale ko ak xaaritatu tariq du benn du benn te tànk delloosiwuñu ndono boobu seen gàllaaj dafa toj parce yàlla du caaxaan ni alquran toll mu wàcce ko ci làmmiñu arab kooku du caaxaan motax bi l'islam di job ñepp job bi l'islam di job ñepp job sayyiduna umar wax borom kër yi di jàngal leen seen doom yi fii ndax yonent bi daf koy soxla jàngal leen seen doom yi tiir ndax yonent bi daf koy soxla jàngal leen seen doom yi équitation ndax yonent bi daf koy soxla kon nak du diine yàccaaral kon du diine yàccaaral allimu awladakum al awma war-rimaya wa muruhum falyathibu ala al khayl wathba sayiduna ali jóg moom itam ni yéwénal leen li appareils yi tuddee appareil a un petit ndax yonent bi daf koy soxla dana am fu nga xam ni jaasi baax na fa wante am na foo xam ni làmmiñ rekk fa baax Mm-hmm. ci taalibe maa koy xuloo Pap Malick léegi ma ne ko toogal ci kaw mu ni ma bàyyil ma toog ci suuf ma ne mu ni ma bàyyil ma toog ci suuf rek fële ci kër ga koy toogal ci kaw da nga sañ see ci kaw bopp de <laughs> bàyyil ma toog ci suuf rek mu fàttali ma bés sëñ Babacar di dem juma ñëpp a koy xaar ci buntu kër gi sollu na ko noppi nekkee dafa am benn gunóor bu ñuy takk buum di ko def ni muy naaw nekk pap daf ci am benn mu dugg ci suufu lal bi mu wax ko góor gi góor gi sëgg di ko ko seetal ñu ni ko waxtu waa ngee paase di mu ne am ah, gunóor bi laa gisul xaw ma naka lañ ko tuddeeti gunóor yu rafet yooyu ah ngalle waaw kay waaw ngalle <laughs> hmm, hmm. moo anamu man gisatuma ko fen fen fen fen wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan te dafa rafet te dafa naaw waaw nga yeew ko ci buum dafa naaw di la wër waaw maa ngi def benn xasida ci ci yoo wallaay ndeysaan ci yoo waaw maa ngi ko tagg ni ko yaa doole concorde te doo xar miiri jàmbur yi wallaay ndeysaan bala nga dégg coowam sax mu agsi ci sa nopp waaye bu dee concorde kenn du dëkkati wallaay damaa xar miiri jàmbur yëpp ma ne kon yàlla xere waaye tubaab xere ñun yàlla moo xereñ waaye tubaab xereñul bu ko defee moom mu jàpp njàmburam rek bu ñëwee ba ci sa wet rek mu woy woyam ndeysaan yàlla ko xereñ la tabarkalla tabarkalla dama am benn najaay médecin la woon ñu affecté ko Tiwaawan ndeysaan benn nit tooñ ko waaw tooñ bu metti maanaam li ñoo tuddee saaga mu saaga ko ma lu tax fay wuloo mu ni ku tuddal mu ni man aw ma ku ma ko tuddal ndax fi wallax yi juróo juddoo rekk la juddoo amul amul ndey amul baay ma ni ko yaay ñaw lammiñ te seetal yàlla maa ngi am benn revue bu ma Serigne Moustapha jox maa ngi ci gis ñu bind ci ni ñoom bala ñoo bàyyi daañu découvrir identité Isa ibnu Maryam ma ni seetal lii li ci yàlla wax doyo ñoom kay dëgg-dëgg nañu dem ci daamisi ñu ngi juddu te amuñu ndey bay ma ne loolu kay lañu war a seet ndax Isa am na yaay mais daamisi amuñu ndey amuñu bay salte salte bi ci ndaali rekk leen di jur muy walax njaan amul ndey amul bàyyi wax la ni yàlla doy na xarit sëkk ndax ku mën lu kenn mënul doy nga xarit sëkk waxuma ni doy na yàlla waxuma ni doy na borom mais doy na xarit sëkk waaw ndeysaan eh, su ko defee nag moom ñoom seen coono moo doon ndamu yonent bi yonent bi na am ndam moo taxoon mu def lu nekk pour xale yi am yitte ndaw yi àllimu awlaadakum alawma wa rimaaya na ngeen jàngal xale yi natation dangeen jàngal xale yi tir dangeen jàngal xale yi équitation yonent bee ko soxla moo ko soxla da ngeen leen jàngal nu ñuy articuler ndax allisaanu ka saairi l aada ida marrantahu maran wa ida ahmaltahu xaam alxawar huwa addof كاليد التي تخشنها بالممارسة المراس هو الحبل الوثيق سيدنا علي نين نغن جانغال خالي يو دغeural sen loxo bamu melni goj ndax nee na kuy def boxe boo defarul sa loxo ba mu mel noonu boo yéegee ci ring bi on te casse la gueule mu ni yonent bee ko soxla yonent bee ko soxla pexe amul ndeysaan dama am benn maam ku yéeme la waaw nee na dof la mu ni man dama dof jigéen ci ni ko ku dof du ko wax ni ko may man xam ni dof la mu ko ku dof du ko wax del wax ni da nga da nga ragal jamono rek waaye bul wax ni da nga dof mu ni man dof la man rekk la amoon nag kum xarit ñi ci des ñépp daf leen di saaga saaga maam saaga ndey jigéen ji sax bu ko dee ñaan daf ko wax noq ma añ ko defee góor gi ni ma sa maam ji moom laaj laajo añam ju tàng na di ndeysaan wante mësuma gis mukk nit ku intelligent ba àgg ci moom du wax mukk farata te wéetul bu nit ñëwee mu commencé saak ni dama dof bu ko defee góor ak jigéen ji ni ko waaw yow sa saaga yi lu tax doo ci boole Cheikh mu ni ko parce que mooy maam sàmba mu ni ko maam Samba man mu ni ko maam Samba Abdoulaye ni juraa laa jàpp dukan ku bokk ci moom kenn du la saaga ndeysaan mu nekk sama xarit kenn rek la ci boole woon Omar Samb moo ko tuddee Baye Samb benn bés ñuy waxtaan mais li ma gën a jaaxal mooy mag ñooñu jàng école amuñu certificat d'étude bu ñu jàngee bu ñuy làkk tubaab nga defe ni ñooy général de Gaulle léegi nit ñi dañuy jàng ba seen taar yi booy te duñu man làkk man xawma loolu lan la ñuy waxtaan nag mu ni ma maam Samba ma ni ko mu ni gis nga man j'ai prié j'ai te dafa dégg tubaab daf ko làkk comme tubaab te amul certificat de d'étude mu ni ma j'ai prié pendant soixante ans et j'ai récité des textes sacrés pendant soixante ans le résultat est là je suis devenu fou ko defee ma ree rek ñu pat xam ni li mu wax ku ko déggul adduna tukki c'était c'était sa manière à lui de caricaturer la religion mais nit ñi duñ ko dégge noonu dañuy daw adduna bu tukki la mas na ko def nettali naa leen ko fii ak gouverneur général Brevier parce que dafa làqu ci biir